dimba jikko moo leen di dimbale jikko mooy tax itam ñu taxaw kon nañ bàyyi xel jikko yi ndax mooy li nga xam ne li gën a manqué fi ñu toll mooy jikko yi rek moo nu ma lu ñu dal rek ñàkk ñàkk jikko yi nga xam ne moo ñàkk mat rek moo nu ko yóbbee kon ñu gën a góorgóorlu ci jikko yi bu baax a baax te xam ne mooy li nga xam ne moo nuy jàppale xam ne moo nu mooy li ñuy dimbale mooy tax itam ñu dajee ngërëmu suñ borom allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salatan tamxu biha kulla ma sadara minna min waqti wilaadatina ila wafatina wa kaffir anna tabiatina wa duyoonana wa kulla ma wajaba alayna la xibbuhu wala tarda xata nalqaaka raadiyan mardiya amin ya rabbal alamin allahuma salli ala bi aqwatillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi waxfir li wa liwalidaya wa lilmuminina walmuminati walmuslimina walmuslimati alahyai minhum wal amwaat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 sallallahu hayya ala salam wallahi qad qamati salatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatluu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wa axarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alazizu alhakim dalika fadlu llahi yutihi man yashaau wallahu dul fadli alazim mathalu alladina xummilu altawrata summa lam yaxmiluha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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamualeykum. asalaamualeykum. allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salatan tamxu biha kulla ma sadara minna mima yuxaalifu ridaka min waqti wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabiatina wa duyunana wa kullama wajaba alayna laka aw li xalqika ijmalan wa tafsila wakfina bijaahihi fi ala kulli ma la tuhibuhu wala tarda xata nalqaaka radiyan mardiya amin ay rabbal alamin rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin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 salaatan wa salaaman wa barakatan tarda bi an abdika alxadimi ridan la suxta baada wa kun lahu bi fadlika alazim wa bi karimika ya baqi ya xadim bila afatin wala qadarin baynahu wa bayna ahad axfir li kulli man taxallaqa bihi min almuslimina walmuslimati walmuminina walmuminati amin ya rabbal alamin allahuma la tusi qulubana baad allahuma rabbana innana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin allahuma salli salatan kamilatan allahuma allahuma salli allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi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 bila afatin wala kadarin qabla alhibati wa inda husuliha wa ba'da husuliha abadan amin ya rabbal alamin allahumma la tadax lana damban illa gafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maytan illa rahimta wala maridan illa sufayta wala xaajatan hiya lana salahun wala karidan ila qadaytaha ya arhama rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin